xëy tey ak li ñëpp waxtaanee jëm ci carte yi ak façon bi nga xam ne ni euh, dégg nañu ni mën nañu ko voter l'observateur def ci xëtam ci français tey ni législative du 30 juillet 2017 euh, mauvais jeu de cartes Ibou jërëjëf Pape Cheikh ñu ñëw rek ci li nga xam ne euh, mooy dogal bi njiitu réew mi jël gannaaw bi mu sàkkoo ci waa conseil constitutionnel ñu sukkandiku rek ci li nga xam ne mooy article 72 bu ko defee ñu mën a may ñenn ci askan wi nga xam ne rek jotuñu seen carte électeur ñu mën a wote lii di permis de conduire wala sax seen carte électeur bu njëkk wala carte d'identité su ko defee rek euh, ñëpp mën a woote nee na nag euh, lim ci jublu mooy fexe ba képp kuy doomu Sénégal am yéene woote ji ci bésub élection yooyee nga mën ko def ni mu waree. Pape Cheikh mbir moomu la yéen a kaay bii di le quotidien les recours de Macky la ko tuddee. waaw ñu ñu des rek euh, ci ci sujet boobu ak waa quotidien ñu gis ne rek Macky ba ñu demee ba xam ne xëy na fii ak li des ci 30 juillet bés yu bëriwul la ba tax na dañu njort ne ñu bëri duñu jot seen. carte électeur ba tax na njiitu réew mi jël dogal boobee rek ci sàkku ci waa conseil constitutionnel loolee la waa quotidien euh, fësal ci seen xeetu yéenekaay bi. yéenekaay yu bari daanaka ñoo bokk li ñu xëyee muy mbir moomu la nga xamante ni am na ci ñoo xamante ni sax cafouillage euh, la ko tuddee ñoo ngi koy liir ci yenn ci xët euh, yii 24 heures par exemple ginnaaw nataalu président def cee toftal itam yenn ci ay documents yoo xamante ni citoyens yi y nañu ko 24 heures bi ne Macky Potte euh, direct info itam nataalu président moo ci nekk ma nga toog di signé ñu bind ci xët bi ni euh, saisine du conseil constitutionnel par le président de la république Macky veut tempérer la colère des électeurs même son de cloche ci xëtu yéenekaay bi di Vox Populi ma nga naan la trouvaille de Macky enflamme les tensions. Mhm. Euh, Pape li nga ko waxe rek boo xoolee kër yéenekaay yooyu yëpp même sujet bi la wala seen une bi benn la daanaka li ñu àddu tey rek jëmal ko si li nga xam ne mooy dogal bi njiitu réew mi jël. jëmale ko ci euh, waa conseil constitutionnel di sàkku rek euh, ñu daganal képp kuy doomu Sénégal te jota ci sa carte d'identité euh, nga mën a jëfandikoo loolee donc loolu jur na coow Pape coow lu bëri na trop ci mbir moom mu ngoog loolee yéenekaay bi di enquête wax naa ko sànq cafouillage au sommet la ko tuddee jëm ci organisation ak déroulement scrutin yi nga xamante ni le 30 juillet la ñu koy amal fii ci Sénégal nataalu ki fi nekkoon président de la République maître Abdoulaye Wade ak ki fi ne Euh, président di euh, Macky Sall euh, seeni photo moo nekk ci xëtu yéenekaay bii di les échos vote avec les récépissés les anciennes cartes les passeports et cetera terrible aveu d'échec l'opposition di niet et menace loolu la ñuy lire ci xëtu yéenekaay bii di les échos Ibou écho ñëwaat rek ci boobu la dogal ñoom nag dañu gis ne bu opposition bi naan aveu d'échec la ñoom waa gouvernement bi ñoom dañ jàpp ne rek dogal bu ñu jël la ngir may doomu Sénégal yi ñu ñëwaat li nga xam ne rek euh, mooy élection législative yooyu loole nag waa ECHO euh, jàngat def ci euh, xët bu yaa Pape voilà mu ngoog xam naa li ci def mën nañ koo bàyyeek Mamadou Mouhamed Ndiaye bu ca kanamee mu xóotal ko ci revue de presse bi gis naa ni réew mi ci la xëy tey mu ngi def ni dysfonctionnement dans la délivrance des cartes Macky cherche une solution alternative réew mi loolu la xëyee et puis libération itam ñu ngi ciy gis coowal mannequin ba demoon di Matimbo ci rebondissement dans l'affaire de la mort mort troublante euh, du mannequin Mati Mbodj le tribunal ouvre la boîte de Pandore xam naa ca kanam Mouhamed Ndiaye na ko xóotal incha allah ci revue de presse bi et puis fàttaliwaat leen ni euh, lépp loo xamee ni euh, jëm na ci coow ak doxalinu campagne bi ba fileeg dimanche ñu fàttaliwaat leen ko bis bu jot bu rédaction bu télévision Futur Média daf ci amal ay jotaay yu am solo ngir gindi téléspectateurs yi.